xam ne nag moo di ordinateur am si biir otom dañoo toj li nga xam ne nag moo di vitre oto bi sàcc fa machine ordinateur bu amoon ay projet moo xam moom mii di Pape Sidi Fall daal di xamle lu ni mel di wax que ne nag na Sénégal ay vigilant bu baax a baax fi ñuy gaare seeni oto waaye moom dina xamle que nag daat nay amoon li nga xam ne moo di ay caméra surveillance kon nag moom jàpp na ne ak lu mën di xew moom ki def jëf ju ñaaw ji dinañ ko daal di teg loxo moom Pape Sidi Fall moo xam le ba léegi si sàcc gi sax nag sàccut machine ordinateur am kese yam si waaye tamit daal di nay sàcc li nga xam ne tamit moo di micro studio pro boo xam ne doon na ko faral di jëfandikoo mu nekk mbir mu doy waar boo xam ne daat nay dal si kaw kii di Pape Sidi Fall nekk ab animateur fële sa 2STV dinañ si ñëwaat gën koo yaatal incha allah jaa ngeen jëf